Euh, jërë ngeen jëf euh, téléspectateur u euh, Dakaractu yéen a yëgandoo xew-xew bi nga xam ne am na fii ci diwaanu mbuur muy xale bi nga xamante ne nii dañ ko fi faat dakar Dakaractu nag moo bëggoon ci xam lu gën a leer moo tax mu doxantuwaat ba fi nga xam ne nii moom mooy ci kër famille bi ñu fekk fi nag ki nga xam ne mooy kilifa gi muy góor gi Assane Ndiaye di maamu xale bi góor gi gannaaw biñ la nuyoo ak Actu dañ la seet si woon. waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen di fay mbokk yi tiis wi ñoo ko gisandoo natt la bu dal ci suñu kow man nag maa jaboote yàlla def na sama sët moo réer dippi àllarba ñu wër ko àllarba alxames mu fanaan ñaari guddi àjjuma ci suba lañ dox fekk ñaari kër a dox diggante fi mu dëkk fi lañ ko fekk ñu rey ko ba denc ko foofu ah wax dëgg yàlla nag bi ma eggee jotuma koo tiim ndax comme duma ci am droit biñ ne maa rek mi ngi nii dama dal di ko dem jébbale sama kàddu ci ñi nga xam ne ñoo yilif muy nguur gi jëli police bi police ñëwee nag ca dagaase sama responsabilité boobaak léegi ñii ngi naan ma dagg nañ ba bi ñu naan ma dagguñu ko waaye man daal jotaguñ ma koo won nag pour mu leer samay mbokk yëpp ngi nii jóge kajoor ñëw toog ànd ak man ci tiis bi mais lii daal mooy li yàlla dogal ñu lañ gisee natt bi waaw ñi nga xam ne ñoo ko yor muy yaayam mi ki jur xale bi papaam nekku fi yaayam a fi nekk ak yaayu ku góor ki yàlla def na man maa dëkkee ci biir daaray bàyyi ma dikkee ji sama njaboot féete boor bii nii daal lañ ma waxee xibaar bi noonu laa ko gisee lii mooy li leer ba léegi euh, kon euh, amagu leen lu leen leer ci ci gone gi gone gi kon mu ngi ci loxoy yoon. gone gi ci loxoy yoon ba léegi yoon leeralaguñ ci dara moom ñu ngi nii di waaj a dem pour leerlu jiwaat. ci xabaar yi ngeen am est-ce que am na ñu jot a njortu ne ñoo ko def walla. déedéet kooku it amaguñu xibaar bi nag. en tout cas dal mi ngi ci yoxoy yoon yoon wowo guñu guñu ben keuyit bu wane ne lii la it waaw loolu moom ci ben yoon ñi ngi deglo dal lepp luñ ci am jombulé buñ fa joggé li mi di luñ ci am da ngeen ko yëg. waaw yow ci quartier bi nga dëkk yéna a bokk même circonscription alors naka ngeen dundé li waaw li mom euh, mbir mu kémané la mbir la mo xamné mu tiss la. birlo mo moo vraiment jurna fi titangé ak njàqare ci képp kuy jeboot parce que vraiment euh, fi mu nek ni tay bo génné sa kër li ngay xalaat moy nan lay fékaté samay njaboot parce que li vraiment birlo mo moo ni ñun daf ñu tiital parce que sénégalais tamul won di gis lu melni té ces derniers moments là li ñu gis lu kémané na luy xew ci réew mi loolu muy mbir moo xam ne nii sénégalais yëpp war nañoo jóg takku taxaw jéem koo xeex ba mu jóge fi rawatina nag autorité yi parce que fi mu nekk nii tey euh, xale bu ndaw boo xam ne deful kenn waxul kenn dara ñu jekki-jekki jël ko yóbbu ko làqatoog moom rendi ko wala ñu joteeg moom yàq ko wala def ko leneen loolu moom vraiment ay mbir la yoo xam ne nit ñëpp ñoo war a taxaw xeex ko pour mu jóge fi comme lu mel ne Mbour ni tay dëkk bu toll ne Mbour grande ville yu toll ne Mbour hein, nga xam ne dafa sécurité bi daf fee xaw manqué trop parce que ñi fi ne comme ay policiers ay gendarmes affaire yoyu ay jambar lañu mais sen ki bi dafa doyul manam sen euh, effectif bi dafa doyul effectif bi dafa manqué trop te léeg-léeg nga woote sax police am njaqare nga wote police ñu naan la wala auto bi fi dem nekkon dafa dem dafa dem euh, num patrouille dafa def ni nangam nangam lool yeb manque de matériel la boo xam ne état war nako koo bu baax baax mbuur war nañ ko seetaat parce que comme toujours dama koy wax mbuur def ko dañ ko wara defal ben traitement de faveur bo xam comme yi ñuy defal yenen yenen dëkk yu magi parce que tay mbuur dakaru ak euh, ak Touba lañ koy mengalel

bu lu mu lëndëm lëndëm bukki day gëmm ne bu bu gënoon bu gënoon a lëndëm kon ñuy ñaan ñu yokk électricité bi bidon bidonville bu toll ne Mbour tey nga ñëw ci quartier périphérie yi ngeen di quartier yoo xam ne nii quartier populaire la ñu naan la fii amul courant fële amul courant ak fii jamono ji toll tey loolu vraiment loo xam ne nii état war na cee jéem a seet pexe te euh, Mbour toll na foo xam ne aussi municipalité bi attanul li fi ne. kon bu euh, état war na ci dugal loxom pour ñu am li nga xamné ni mom lañu wara am ci euh, courant ñu am li nga xamné mom lañu wara am ci sécurité comme euh, quand sapeur sapeur pompier aussi bëgg nañ ko parce que ben sapeur pompier mo fi né effectif bi wul lolu dal vraiment suñ ko amee dinañ jël. nijaay ci xalé bi papa ci euh ñakare la dund métit bu reey reey reey reey lay dund fu mu toll ndax jamono bi fu mu toll nii dem na bu egg fu nga xam ne ah, dara desutul léegi dañuy ñëw rek jël ci buntu kër yóbbu reyndi ah loolu moom nit moom war na tiit bu baax a baax loolu mooy mooy suma li te yaakaar naa ne fii nii gox buñ nekk en tant que liberté quartier périphérique la ci Mbour da ngay dem ci yenn rue yi courant yenn amul courant te y a trop de bâtiments inachevés bâtiments yooyu nag la ñu war a fexe te fu ak euh, jëfin bi yow so fekkee le gars a bien bâti sa maison kule na défar na lepp mais kuy def kat lu bon bu dafa bëri pexé fa lañ ko jaralé def lu def rayni xalé bi jéem ko sul fofu voilà ensuite euh, de ce fait acte bi ñu ngi koy ñaawlu trop acte bu ignoble bu barbar c'est que à chaque fois dañ koy dundu ci temps yi surtout suñ réew muñ nekk instant bi Sénégal nekk na réew bu nga xam ne actuellement ñu ngi dund yu mel nii te daaw ñu ko xam xamuñu ko léegi fu mu toll nii lii nii tey tey je di dis une chose fu mu toll nii dafa semer la panique partout dans le quartier fu nekk ñëpp a tiit fu mu toll nii njaboot yi ragal nañ tiit nañ parce que ku nga xam ne soo xëyee yaa ngi wuti lu ngay lekk indil sa njaboot yow soo génnee ah soo njaboot koo koy bàyyi. te rawatina ñu nga xam ne dañuy sàmm seen i njaboot xale bu ma lay wax nii dañ koy sàmm ma ma keroog mercredi buñ koy buñ koy jël keroog demul daa eh, ci ngoon gi gontuñu dañuy dem daara chaque fois saagam la yor yore ay jouet di foo ci buntu kër gi teg satale bi bu muy jàpp bu buntu kër gi lañ ko jëlee. te loolu vraiment ñun tiit nañ fu mu toll nii ci ci réew mi te ñu ngi lancé un appel à l' état mu jàppale population yi. fu mu toll ni Mbour toll na fu nga xam ne population bi dafa attanatul euh, sécurité bi aspect sécuritaire bi maanaam police bu fi nekk ak ñaari police yu fi nekk attanatul population bu nga xam ne mu ngi fi mënul ko assurer ñu ngi sàkku ci nguur gi nag mu jàppale ci ay brigade de proximité ay brigade de proximité même s'il le faut même un camp un camp li GMI su fi nekkee dana mën a euh, wàññi mbir mi intervention yi dana gaaw te électricité bi tamit lu am solo la ci réew te vraiment ñu ngi lool tamit autorité locale yi war nañu ci jappalé état dana def mais autorité locale yi tamit nañ sam sani jëf seni li sani sani li lutax i nit ñi tegg leen fi parce ñun tamit ñu nekk fi di leen ni chaque année suñ soxla baat ñu taataan ñu ñëw ci nit ñi taataan te suñ amé bu falu ñu faté nit ñi parce que nit doomi adama bala ngay mëna nekk da ngay nekk ci jamm mëna nekk ci sécurité nga sa xel dal nga mëna liggéey pour dundal sa njaboot. man ma xale bi la ma jur papa mbir mi na nga ngeen ko dundé xana diko ko naqarlu rek. di doon xaré ma ci xol lañ ma jëm ndax ki sama taw ba yalla jito mohammed Top muy sama yaakar ki dip taw mu di ko gis ci aduna waaw nu nek nak do ma dama yo ne xamul dara mënulu dara lumay yoyé sunu ñak rek muy lu matis nak ak loolu it dama no sax luma wax ndax du ñeexasee wax rek wax bi ben la man nakar lako ba fa kanam yalla di committee lu ba fa kanam yalla di ñaanit sama sët bi lu ko jël ci sama kër gi yobbu ko ci tabax yii def ko defi nu ñaaw ma tek ko ci yalla ak yonti yalla amet di ñaan yalla ko yalla yuan ak yonti yalla met nit may ñaan lepp lo xamne yoon ci ba affaire bi leer nañ yalla nako sa borom yalla leeral man daal naqari na ma métti na ma tiis na ma yàlla yàlla leeral yàlla ki man a leeral ki am doole te am tor su dul fay guddeeg bi ci suba ngoon niit loo naa ko saa borom yal na ko saa yàlla niit di daal laam ci xaw ma ci dara nag jëlee nañu ko ci sama biir kër mooy wër dikk nañ na ma deen di daal laa ci am lépp lu ci yoon man nag soupçonné wu ma kenn accusé wu ma kenn waaye buñ ba kenn buñ bàyyi fenn buñ jënd kenn na lépp leer alors mbokki Dakaractu euh, fii ñu jëm nii euh, mooy kër gi nga xamante ne nii fa lañu ñu xale bi maanaam fa lañ ko rendee dugal ko ci saaku kon euh, Cheikh ñu dem xool waaw bi mu réeree ñi yendoo koo wër ba ca ngoon fa dañoo ñëw sama jarbaat bi ba tey bi mu duggee fii mu fekk saak bu ndaw bi xale bi doon fooy ñu joxoon ko ci buntu kër bi mu fekk ko ci biir néeg bii gis nga bagage yi ci biir saak bi la bokkoon. bi ma ñëwee sama jarbaat gàttam mu ne ma pap maam Asim xoolal saak bi de jël saak bi moom ràngoo woon a ngi nii man kan dem nga woon ma fi mu ko jëlee bi ñëwee fii wan ma ko biñ demee ma ne gees Lamine mii dafa naa ak maam seex neen saak bi comme déclaré ji woon nañ nag. yóbbuwaat leen ko police ci sama rafet njort it maa ngi defoon buñ ko yóbboo police waa police dañuy ñëw fi ñu foree saag bi gone yi yóbbu saag bi police biñ dellu see jotumaa gisee ak ñoom waaye bi ma laajee dañ ne ma ñoom day seen photo photo xale bi rek lañ leen laaj ba jël nañ ko yóbbuwaat nii la fii demee action bii moom waa police seetlu wuñ ko fii moom noonu lañ ko gisee noonu lañ ko expliquer ñu génne fii nag jëm fi ñu ko lore waaw fiñ fan la fee fii nag jëm ci kanam. waaw ah, ñu dem foofu. Euh, fii nii nag fii lañu fekk ki nga xamante ne euh, moom mooy xale bi. léegi nag mm, bi ñu ñëwee fekk nañ gis ngeen pax mii ñuy wane nii euh, ak birig yi fii la ñu fekk xale bi euh, kenn si suñu interlocuteur nag nee na moom bu mu yóndoo gis koor bi gisul bopp bi ci la wàññeeku. dañu dajji ñun dañu dajji bu ñu yegsee balaa police di yegsi pour nit ñu mun a am voix bu gars yi retrouver ne am na lii lu fi nekk ku dee ku fi nekk ñun dañu dajj tabax bi. egg à quelques mètres à cinq trois mètres quatre mètres ñu taxaw man ak maçon bi man ne ko taxawal ba egg ñu seen ma seen koor gi nii ak loxo bi mais j'ai pas aperçu la tête seenu ma mais peut-être xay na briques yi ñu tegoon am na ñu xaaw a teggi briques yi tuuti ci kawam nii ba moo tax peut xam naa ñu ko njëkk retrouver kooku moo laal brique bi waaw c'est ça te loolu ñaaw na trop fii lañ ko jéemoon li jëm ko fi suul gis nga kàmb gi fii lañ wàqi woon

Euh, délégué de quartier benn mot rek. waaw merci maa ngi leen di nuyu di leen sant di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di mbetteel moo xam ne dal na liberté gépp muy mettit bu metti bépp koo xam ne way jur nga képp koo xam ne nit ku baax nga lii metti na la man démb bi ñu ma ko waxee bi may ñëw su ma na oto du ma mën a yegg si suma tànk yëpp dafa lafañ donc maa ngi ko dégg ci jaram yi moo ma ko wax ak Malick Mbengue di ay nit ñu baax ñu fi nekk waaye bi mu ko defee nag war naa autorité yi ma mën a woo yëpp daan nañu teew sur le coup après ñong koy jalé famille bi diko jalé ñep merci ba. Euh, kon nak euh, mbokki euh, téléspectateur Dakar Actu yeena gis affaire bi mbir maangi ngi no comment.